Sunugal 24 point net l'information à avoir confiance en moi en plus de ça j'ai beaucoup tiré ce, qui m'a permis d'améliorer mon niveau parce que ici il y a que des seniors par rapport à moi que je suis cadette ça ah, le fait de jouer avec les seniors augmente mon niveau ça m'a beaucoup appris. ambition, j'en ai beaucoup. Tout d'abord, je, je, suis cadette et cette année-là, j'ai participé au championnat d'Afrique cadet junior. Et là-bas, je suis allée jusqu'à quart de finale. Et je, sais que j'aurais pu aller jusqu'au final. Et l'année année prochaine, je veux progresser, avoir la médaille d'or pour le Sénégal. En fait, je voulais dire de nous aider parce que l'escrime sénégalais est en train de souffrir. Ici, on n'a pas beaucoup d'appui. Il y a des gens qui ne sont pas intéressés par l'escrime. Si tu vas dans les rues, tu dis aux autres que nous sommes des escrimeurs, ils nous demande c'est quoi cet sport. Parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas l'escrime. Je voulais dire de nous aider, de nous appuyer par rapport au voyage et au matériel. On n'en a pas beaucoup. Ok, moi, je m'appelle Abdoulaye Cham. J'ai représenté Sénégal les euh, Jeux Olympiques en 2008. Son papa, moi, Hassan Cham, basketball player. Bon, moi, j'ai commencé d'être escrime depuis 1997. Je suis qualifié aux Jeux Olympiques en 2008, c'est là de Beijing. Après Bobo, c'est là de mes États-Unis pour me performer, c'est mes jéem a performer pour gën a mën a am expérience xam escrime ni mu jëmee kanam ah, depuis boobu ba léegi nag ah, depuis 2000 2009 ñu jógee ko noonu ba 1999 si laa toogee gis ni Sénégal escrime bi moo ngi moo ngi jëmul kanam si laa décidé ma ne pourquoi pas ma revenir sama réew jéem a jàppale ah, sama doomu réew yi pour ñu gën a mën a performer si escrime Sénégal pour mu jëm kanam so depuis boobu léegi nag euh, depuis 1980 euh, depuis depuis 2015 si la commencé Open Line Fencing Club si la commencé soo lu gisee ni bi mooy quatrième édition bi ñuy def euh, tournoi bi ni si la invité samay samay partenaires samay sponsors pour ñu gën a mën a ñëw xool liggéeyu Sénégal xool suma liggéey nu ñu commencé def so si lañ ñëwee jàppale ma si si si si si si préparation yi bon boobu ba léegi nag cas bi bu mu démarré moo ngi démarré euh, le 29 bi mooy clôture bi pour à la mémoire de Père Wahab Ba so per Wahab Ba moom moo ne woon président euh, euh, fédération sénégalaise d'escrime bon si la ko yàlla jëlee yàlla na ko yàlla xaaree àjjana suuf sedd si kawam depuis 2008 so bu ñu ko gisee ba léegi escrime bi jëmul kanam so si laa ne pourquoi pas ma ñëwaat sama réew jëm a jàppale sama doomu réew jëmoon naa nag contacter fédération pour jëm a liggéey ak ñoom mais bon. jotuma ba léegi ay nouvelle bon comme te y a des pro problèmes personnels bon ñu jëm ko boole ak problème public man am na yoo xamante ne bon man duma si dugg bon si laa ne pourquoi pas ma jéem a créer l'enfesi que la mu doon académie ñëw jàppale booy yi pour gën leen mën a dimbali pour ñu gën a mën a dem ci performer si seen jàng surtout di def sport ngir gën mën a dem euh, United States pour performer si escrime foofu noonu jéem a dugg si si college yi pour euh, euh, pour pour suba defar seen avenir quoi c'était c'était le but du du camp. jàngat bu ma si am booy nag so bëgg nañu escrime trop mais bu ñu amoon ku leen jàppale nañ jëm kanam si laa taxaw ma ne pourquoi pas ma jéem a jàppale suñu doomu réew defuma ko nag ngir dara jur rek amour ak. mbëggeel bu ma am si si sama réew am mbëggeel bu ma am si si si si booy nag loolu loolu rek la parce que tey jii su ma melee nii sama sama sama sa Sénégal Sénégal moo tax ma mel ni ma mel nii du dara lu du Sénégal kon aw ma fenn fu du Sénégal kon su ma toogee jàppale doomu réew fële na le du ma jëriñ dara kon ma ne pourquoi pas ma ñëw jàppale samay doomu réew pour ñu xam ne jëm la jëm a jëm ñu jëm kanam loolu rek. And uh, we've had a tremendous experience here. We've been now for uh, one week, and tomorrow we go home. And uh, we, we'll do everything that we can to help the sport grow here in Dakar. Um, tremendous potential, tremendous potential. This, my impression is that Senegal, like the United States, they love sport, yeah? and the people are very athletic and this is a sport for athletes and in the future the, the, the future for Senegalese fencing is completely open. Thank yeah. you so much. Yeah. Thank you so much. Merci beaucoup. Merci. Sunugal 24 point net l'information à sa juste valeur c'est ici même Sunugal 24 point net